de bi pour que man ma mën a sauver. Ismaïla Madior Fall même bu président Macky Sall setoon. waaw setoon. a set. waaw non comprendre naa mais léegi nag xam nga bu ñu seetalee chef de bande bi léegi surga yi duñ leen a tuddee bi foofu ne. waaw problème bi. mooy moom day wax. te du am retenu ci li muy wax saa à dire day wax te bàyyiwul xel li muy wax comme si maanaam fa ñu tegoon Sénégal démb en 2012 wala en 2000 lan 2000 2000 jàpp noonu fa ñu tegoon Sénégalais yi fa lañ teg Sénégalais ba tey mu Sénégal dañu leen jox rek ñuy consommer. te gars yi nekkatuñ foofu gars yi jamono bi nga naan salaamaaleykum fa la ñuy commencé xam li nga sa salaamaaleykum sax boo koomee ñu ne nii la ko nuyoo te war nag bu fekkee dañoo jàpp ne Sénégal da nga leen jox ñuy consommer loolu amatu fi. discours yi muy porté nii yëpp ay discours la yoo xamante Sénégal li ñuy jàpp mooy kii mu ngi gën a weer boppam te yëgu ko def na fii émission ñu posé ko question mu répondre question boo xamante ni dafa toogaat def communiqué di jéggul lan moo tax muy jéggul parce que Sénégal yi réaction bañ ci xam ne kii weer na boppam mu ne dafa juum ci amnistie bi mu dikkaat tey di waxaat ci ay responsabilité président Macky Sall ak lu nekkul responsabilité ba ci situé ay ñi nekkoon di opposé que mu respecte sénégalais yi bu mënul noppi na ko yi noppiloo ay mbokkam nag laa ñu noppiloo ko maanaam ñi nga xamante ni ñoo ko jige ndax heure buy wax rek dina day gën a weer gaa yi. waaw na nekk euh, waykat bi li ko mbokkam di ñu ko nëbbu tamit. Hmm? ko mbokkam di ñu ko nëbbu. mais li may la de <laughs> ah Baol Médias ah, gi de ah, wax dëgg yàlla Baol Médias <laughs> gi ah, Alaaji Fallo bu fekkee heure waxee de révélation bu mu def <laughs> génn suñuy sekk rek teg ci table bi wax dëgg yàlla bu ko mun jóg caat néewul noppi Moussa Ba Thiam néewul noppi man dinaa ne ko day noppi par force parce que nag lii mënuñu koo dëkke waaye nag di ko seetaan muy wax rek di la yàq mais mais Fallo la de te wax non mais dañ daa jibu xam na actuellement nii suñu waxul dañ leen di waaw am na si ñoo xam ne suñu waxul ñoo mën a yem de. ah day campagne. waaw très bien campagne. suñu ah, waxul kenn dañ leen di fàtte te dootuñu am benn buzz. am na si ñoo xam ne fi ñu toll nii waxatuñ ki yow déggoo toole fàtte nga leen fàtte nga sax seen i léegi nag moom pour mu bañ ñu fàtte ko waaw Ismaïla Madior Fall daa mën di am buzz ci Sénégal buzz bu weesu bu mu fi amoon. waaw nekk ministre de la justice. Sénégal jaxasoo. nit ñi di faatu buzz ba am Sénégal weesu waaw moom buzz bi mu amoon mën du ko am. mooy du ko am. Ah. ñoom ñi koy xanaa ñoom ñu dem assemblée nationale rek. comme que président moo wàcc amul benn bës bu mu di ko yuuxu. léegi ma mhm. léegi li ma jaaxal foofu mooy mhm. ñoom xam nga ñoom wax dëgg yàlla yàqalu ma leen nag gaa mais man dama mënul comprendre ñii nekk fi 12 ans ñii nekk fi 5 ans ñii nekk fi 4 ans ah servir duñu dara Sénégal ah tey ñu jàkkaarloog Sénégal naan jox leen ñu majorité ñu liggéeyal leen. di wax. non Sénégal nag il faut que nit ñi ñu ñu ñun alaaji yàlla xam na ne ah ñun politiciens yi dañu ñoo respecté wu. waaw respecté wu ñu ñenn ci askan bi. billaahi. xam na moo tax man la respecté wu ñu ñenn ci askan bi. Mm-hmm. yow analyse boobu nga def ne nit ki def na fi 12 ans wala def na fi 20 ans liggéeyu ñu wàccee comme même pas 7 mois mu ne joxaat leen ma ma liggéey. joxaat leen majorité assemblée mu député poste député ma liggéey. te te te te li may wax Sénégal mooy député mënut a defar tëli député xam nga lu mu fa nekkee voté ay loi voté dong la mën de ànd naa ci euh, par exemple ma jël benn exemple. Mhm. ñu ne dañuy voté ministre bi budget nangam pour mu ñëw Mbàkke defar suñu inondation yi. yow Leuz nga nekk député nga ne ànd naa ci man ma nekk député ne ànduma ci. député mënut a defar député dafay voté ay loi kese. léegi nag yow buñ la joxe yaa fi nekkoon liggéeyoo ban wàccee la nga ne yóbbu leen ma député ma defar leen loolu ay nax la ñu fokk ñu yeewu ci léegi nag ñenn ci Sénégal yi nga xam ne ñoo topp ñooñu nag mais ñooñu ñoo amul calculu àdduna ñooñu la <laughs> baat bi dafa xaw a dafa xaw a metti ci wolof moo tax bëgguma ko utiliser mhm. mais amuñu xam-xam man munoo yor sama réew 12 ans defuloo ma dara fàtte ma def nii mais toog ba wàcc naan ma joxaana man liggéeyal la su ma la joxaatee doo ma liggéeyal. Mm-hmm. mais loolu mooy problème bi. Mm-hmm. alaaj léegi euh, mitinu Ousmane Sonko fële ca Ziguinchor daa indiwaat ay polémique yu bari ci réew mi. Mm-hmm. kenn ku nekk mu ngi ci addu ca ca ca ca Casamance ca la ca xew. waaw coowul Casamance li euh, moom da ciy addu waaye mu ci àddoo MFDC ñoom tamit génn nañ daal di koy tontu. Cheikh Yérim sekk tamit tontu na parce que moom da cee waxoon bu njëkk Ousmane dànkaafu leen ne ku ci waxaat loo waxaat kaso nga jëm moom nag mu ne dana waxaat la waxoon waaye ñëwaat na wax xam naa déglu ngeen affaire yi version yeeg la ca Ousmane Sonko wax ca coowal Casamance laaj na ñuy def ba jàmm dellusiwaat ak yëpp waaye MFDC ñoom daal li ñu jàpp mooy Ousmane Sonko rate na discours ba dafa raté jàpp nañu ne discours bi mu porté du buy defar buy defar buy indi jàmm Casamance. Euh, moom daal yaatu na xam naa déglu ngeen discours yeeg yoo euh, hmm. man man man problème mu Casamance bugguma euh, di sax parce que xam nga moo tax bugguma di ci wax. discours yi durant que Sénégal am indépendance ba fi ñu toll président ak premier ministre yëpp kenn ku ci nekk da cee wuuteeg morom discours bi mu mënee. kenn premier ministre ak président yi. discours yi ñuy mënee Casamance dafa wuute. Mm-hmm. est-ce que comprendre nga baax li mbaax maanaam président bu ñu ak discours bi ñu ciy mënee. bi ñu ciy porté ñu ciy porté. Mm-hmm. bu ñu xoolee tamit ña fa nekk tamit rébellion MFDC yi discours yi ñuy porté ci ba ci président bi ñuy jàkkaarloo day wuute ak ñu nekkee seen seen ñoom kese président bi ñuy porté ci population bi léegi nag loolu mooy problème bi donc problème mu Casamance man je pense bien ka réglé woon nañ ko une bonne fois. donc fi ko réglé woon waruñu woon a nekkaat foofu di suli boobu débat yooyu euh, mais nag li ñuy njëkk seetlu nga xam ne man moom laa ci njëkk a seetlu mooy ki porté débat bi mm-hmm. muy Cheikh Yérim Seck mm-hmm. man Cheikh Yérim toujours li may wax fii rek ay waxam moom man jarta duma sa doom mm-hmm. man parce que Cheikh Yérim man su ma ko jàngatee li muy wax lépp la muy wax buñ ko xoolee ba ci biir intérêt personnel am la wala muy nekk loo xam ne dafay yàq Euh, doomu aadama wala muy nekk loo xam ne dafay yàq xelu xelu doomu aadama yi mhm. comme nag loolu lépp da ci am ba nga xam ne Casamance bi mi ngi bëgg indi yeneen coow léegi il est temps que le président bi nga xam ne moo nekk euh, président de la république moom mënu ci benn discours boo xam ne ñëpp dañ ko xam ne Cheikh yi moom ay waxam moom dafa maa doyul benn yoon euh, maam waaw mm. ah. ah, man de dégguma discours Ousmane Sonko dégluwuma ko woon réponse u Cheikh Yérim bi daal laa dégg mm-hmm. waaw xaw ma lan la waxoon lan la Ousmane Sonko waxoon wax dëgg yàlla waaye nag dégg naa Cheikh Yérim génn di weddi ni dañ ko menacé mm-hmm. Sonko bi muy wax daf ko daf ko doon tiital daf ko doon napp waaw dina delluwaat ci wax ji eh, nii la ko waxee woon nee la koy waxee ah, ñu indi eh, vaar mm-hmm. ci vaar yi laa ñëw ñu ni eh, am na différence parce que moom bi muy tontu jaaraatul woon fi nga xamante ni moom la Sonko waxoon waaw man nag déglu ma woon discours Sonko li mu doon wax waaw mais nag bi ma ñëwaatee si vaar yi euh, réponse bi am na am na am na wute na. c'est diamétralement opposé. <laughs> doy doy na waar. dama xamul nag. 88 628 19 05 wala 88 628 81 08. Sista. Sista da ngaa sori sa Cissé daa mel yow pare woo yow mi Cheikh Cheikh Yérim Cheikh Yérim Seck ak kii Ousmane Sonko waa ñoom lan mooy seen problème kaa bi dem ba léegi daf ma daf ma rëcc de. 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 Alaaji mhm. comme comme comme ni nga ni ngeen ko doon waxee rek noonu la xam nga. damay ñëw sax d'abord ci discours bi nga xamante ni Ousmane Sonko porte na ko foofu ca euh, Ziguinchor jëmale ko ci Casamance xam nga ñun xam nga ñun Casamance ñun sénégalais yëpp dañoo soxla ñu am jàmm te nag dañoo war a am jàmm parce que dafa jot dafa jot ñu am jàmm parce que nag foofu la Sénégal toll parce que réew kenn mënu koo développé te jàmm amul waaw kenn mënu koo développé te jàmm amul te jàmm jooju dafa war a delsi Casamance am jàmm doxal jàmm Fall da nga wax lu am solo jëmale ko ci euh, par rapport ak li nga xamante ni moo di euh, moo di moo di président yi fi jot a jaar yëpp cest à président yi fi jot a jaar yëpp dañuy gis ne kenn ku nekk porté na benn discours jëmale ko ci li nga xamante ni moo di euh, Casamance mais ku nekk tamit am na taxawaay bu ci amoon mais daf ko daf ko échec cest à li ma gëm na kon mooy Ousmane ko dafa wax lu am solo cest à am na sañ-sañ loolu peut-être waxin bu la bu bu bu laaj dégg-dégg am na sañ-sañu dem ci ñoom jàpp ku nekk loxoom ne ko tegal sa arme te ngeen ñëw ñu waxtaan cest à foofu li ma fi bëgg li ma fi bëggandi mooy booy xeex di xeex di xeex di xeex di xeex di xeex ba ci yàgg ah te xeex bi sottiwul indiwul résultat danga naan nañ leen ñu toog waxtaan te dama gëm ne Casamance toog waxtaan mooy régler situation bi mais pas jàmmarloo parce que sunu militaires yi nekk foofu dañu leen soxla ci yeneen côté du foofu rek lañu leen lañ war a nekk dañ leen soxla ci yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen léegi nag comme que soxla nañ leen ci yeneen ak yeneen ak yeneen kon dafay am solo nag ñu toog waxtaan ngir trouver ay solution ngir Casamance am jàmm ay xale dañ fa nekk yu war a focus yu war a nekk seen ay projet ak yeneen ak yeneen ak yeneen foofu jàmm moo fa raam léegi le fait que nag jàmm boobu noonu tëw a am kon nañu xoolaat yenn solution la ñuy régler jàmm mais bu fekkee le cas de de nekkuñu woon ci kii. nekk ñu woon ci jàmm. le les les les années passées affaire ah, boobu réglé ko woon bañ tegoon armes yi nekkoon ci jàmm. non réglé réglé réglé bi. définitivement la war a nekk. warul nekk tey mu jóg suba mu toog. mais lan moo ko yëkkatiwaat lan moo yëkkatiwaat affaire bi parce que loolu lañ bëggoon ki ko doon ki doon réglé loolu. kan moo ko réglé ba ba ñëpp toog. ah de loolu amul amoon na kay. non non amoon na discussion amoon na ay yooyu. discussion mënul ñàkk. mais mhm. xam nga. comme ni ko Ousmane Sonko waxee rek xam nga problème mu Casamance du du problème moom dañ koy régler définitivement automatique maanaam carrément mu jeex. Mhm. parce que à tout moment peut-être am na lu mën a des. Mhm. mais pour ñu régler ko définitivement mu jeex ma dama gëm ne dañu war a toog waxtaan. xam nga ma la wax. Mhm. cest waxtaan mooy régler. nañ jël kooku jëlal kooku. salaamaaleykum allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. alo allo waaw. kilifa gi ñu lay ziar. yéen a ci jàmm bu baax. sant nañ bu baax alhamdulilah. maanaam problème mu Casamance bi am xam ngeen ay santas da see da see am. la hmm. si MSDC moom ngeen kii bu ngeen buñ sañoon coow li di jeex. niñ hmm. mën a comprendre benn tubaab bu nekk sa France. Hmm. bind livre di wax problème mu Casamance pour Casamance moom boppam loolu seytaane la jaxase la. loolu la sonk ni livre boobu du fi dugg. am mercenaire bii di Yërim Seck gën génn di ko toon problème bi foofu la démarré ak général Kandé bi yëpp mu wax ko si penc bi ba ñëpp dégg ko fii amatul secret de attaque amatul lépp lépp lu fay xaw dañ koy wax si penc ba ba Sénégal yi yëpp yëpp loolu la mhm. daa am Abdoulaye fii la taxoon ne ñenn si kii maa leen daan dundal fii la taxaw wax ko buñ toogee toog gisuñ xaalis dañuy génn di santaase kii nii ñi état bi faalewul loolu Sonko ñoom ñoo dëkk xamante nañ bu baax a baax Sonko seen gox boobu la dëkk xam na leen problème mu Casamance la bëgg mu réglé wu définitivement. Mhm. mu am jàmm bu ko defee économique bay gépp di circuler. Mhm. loolu moo tax a jóg Sonko. waaye du mercenaire bu mel ni Yérim Seck wala waa MSDC ñoo koy delloo ginnaaw fii mu nekk jërëjëf merci. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax 88 628 19 05 wala 88 628 81 08. comme li ma doon expliqué léegi di jaajëfal auditeur boobu di wax ne mën ngeen ànd ak ñun li ma doon expliqué al euh, yow yow yow Didier. Mhm. ci ci ci cas Mhm. cest à du problème boo xamante ni maanaam dañ ko war di dañ ko war di bay di ko bay di ko bay chaque jour. Mhm. mais dafa nekk problème bu ñu war a régler définitivement. parce que maa ngi la ko wax léegi maanaam développement faaw jàmm am pour nga mën a développer. Mhm. le fait que jàmm ñàkk rek pour nga développer dafay jafe. dëgg la comprendre le de de de de Cheikh Yérim bala may ñëw ci MFDC. le cas de Cheikh Yérim Cheikh Yérim dafa toog ci plateau wax loo xamante ni dafay taalum réew am réew. nit dafay moytu di wax lu ko taal cest à dafa dafa wax ci arrestation wu général Kanté te nam ci àddoo man jàppoon naa ne warul woon a àddoo noonu te moom tamit xam na ne warul woon a àddoo noonu xam tax mu xam ko. Mhm. parce que beneen sorteem bi ware na ne warul àddoo noonu parce que jaaraatul ca lam jaaroon waxaatul la waxoon. Mhm. kon day firnde ne la waxoon waru ko wax. Mhm. parce que mu ngi doon wax ci affectation wu euh, général Kanté ci ñu ko affecté ak taxawaay ba mu amoon Casamance waruñu ko arrêté parce que taxawaay ba mu ci amoon nii ak nii ak nii mu nekk loo xamante ni même FFDC bi ñu génnee démb xam bërki démb sax adduwaat nañu ci même chose. Mm. adduwaat nañ ci ñu génnee wax nañ ci. ci ci ci affectation général Kanté ci ni ko Cheikh Yérim Seck doon expliqué. cest à mm. dafa am yoo xamante ni ah soo ci féetee rek dañu am fu la gars yi féetale. même chose wax na ci livre bi moom Cheikh Yérim Seck livre bi nga xamante le cinq lañ ko na a publier fii ci Sénégal Ousmane Sonko bañ loolu te li tax mu bañ ko aussi man dama ci d'accord xam tax ma d'accord ci France amuñu oppor waruñu mën a am opportunité dikk ñu ñu bindal suñu histoire fii ci Casamance te ñu soxla fii caaro Caaroy 44 ñu leeral ko ba tey tontuñu ci te dañ cee war a tontu te loolu moo ñu ëppal solo fuuf te waxuñu ci léegi pourquoi ñu bëgg a am jël benn benn benn benn benn benn affaire rek bëgg ko profité di ci bind ay livre di yenn Sénégal di ko jéem a publier pour sénégalais yi maa ngi dégg MFDC naan pourquoi ñu koy kese parce que bañ ba di nëbb réalité yi nga xamante ni moo nekk Casamance historique gu Casamance. mais France ci nax ñu la dëkk mhm. ndaxte fii lañ toog ba heure bu ñu sentiree ñu nelaw ba seen bopp yi tàng ñu ñëw ñi ñi wan naan ñu lii mooy jaasi Seex awoon Fuutiyu ku xamul fu Seex Omar Fuutiyu nekk di nga xam jaaseem fu mu nekk ñu bëri la population ñu bëri gëm ko sama genre gi nga xam ne mooy lool ñu bëri gëmoon nañ gëm nañ ko mais man mosuma koo gëm mm-hmm. dafa bëri nax yi ñii nax te nax yooyu lañ dañ dañ koo war a dégager xam na ñii dañ ñuy nax waaye mm-hmm. mooy loolu xam nga loolu boo xoolee yu bari mu ngi commencé wàññeeku ak régime bu bees bii fi nekk bu ñu waxantee dëgg rek mu ngi commencé wàññeeku ci ak régime bi parce que opportunité yi France amoon daan daan ñu ñëw rek di daw suñu moyen bi di dem mosu leen a gis kenn di questionner France ci caaroy 44 mais li ma ci metti mooy li ñuy wax ay mercenaires dafay am nag parce que bi Ousmane Sonko àddoo ci caaroy 44 dama gis ay mercenaires yu nekk ci biir Sénégal di dal ci kaw Ousmane Sonko naan loolu du solo si solo si mooy mu wax jalee da gis ku naan solo si sax mooy mu def déclaration politique générale c'est-à-dire man dama jàpp ne nag nit ñi war nañoo nite au moins même bu fekkee sax dañuy gagné ci li ñuy def mais ñu nite nite di jéem a di jéem a jox sénégalais loo xamante ni sax buñ ko déggee au moins dina leen xaw a satisfaire livre bi France du moo ñuy bindal suñu histoire France du moo ñuy manipuler France la mu war a régler mooy caaroy 44 mu leeral ko ba tey amuñ ci leen lu leer te ñoom histo historique bi ñoom bindal nañ ko seeni doom ñoom tamit histoire Thiaroye 44 ñoom bindal nañ ko seeni doom lan moo waral loolu lépp fan la commencé fan la jeexe bindaluñ ko seeni doom lan lañ bindal seeni doom leneen lañ leen bindal lu dul li dégg ba pare ñoom ñu bëgg ñoo bindal foo di ñu jox ñun ñuy consommer loolu moo fi war a jeex comprendre MFDC tamit ñoom dama jàpp ne dañoo dégluwul discours Ousmane Sonko bi dañuy tontu si parce que li ëpp solo mooy nit kiy wax nga déglu ko pour tontu ko mais dégluwuñu Ousmane Sonko xeex guerre boo gis mu ngi jeexee ci toog ci table waxtaan mais pourtant toog ci table waxtaan boobu foofu la Ousmane Sonko euh, waxee foofu la Ousmane Sonko waxee parce que bu demee ba ne ña fa nekk samay papa samay nijaay samay frère am naa droit dem sax jël ngànnaay teg ci suuf ñu toog waxtaan kon kooku pare na pour waxtaan kon kooku mu ngi wut ay solution pour waxtaan comprendre il faut que nit ñi di déglu di dégg doog di mën a répondre ci affaire bi Cheikh Yérim moom Ousmane Sonko cité wul turam danay danay emprunté politiciens yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi lañ soxla voilà soxlawuñ ay wax yi sew yi voilà danay emprunté politiciens yi nga xam ñoo fi nekk di àddu ci wax ji di ci àddoo naka sudul noonu mhm. ku ci àddooti naka sudul noonu boo saagoonul police mooy sa mais loolu mooy yoon mais la tax mu tontu mooy xam na ne na mu tontu waxoon waru naa waxee mhm. te répété waatu ko mhm. sénégalais ay nit la ñuy xalaat Cheikh Yérim mënta dox ci maayinu nit ñi Cheikh Yérim na nite Sénégal ñoo ko bokk na nite nite mooy ngay wax waxi nit nit ñi xam ne waxi nit ngay wax nit ñi nawloo la boo waxi nit kenn du la nawloo comprendre léegi dañuy dem. alaaj moo ko ndax borom xam-xam la. mais borom xam-xam boo xam ne bu waxee rek. Sénégal ñëpp téye seen génn. ma ne ma ne. dañ faa la sa biir wax da wax ne. Hmm. Sénégal dafa am ay mercenaires français. Hmm. Hmm. man nationale française si ñi ma ko mën a jàngate mooy ñoo xam ne dañu fee nekk Sénégal ba pare di liggéeyal waa France. waaw léegi. lu fekkee ne ay mercenaires français ñooñu duñ ba léegi dañuy bëgg colonisation bi ñëw parce que ñoom ñoo buy colonisateur bi nekkee ñoom la ñuy jël comme ay gouverneur ay préfet ay yooyu ma ci gàttal. Mm-hmm. mais léegi Sénégal France yàgg naa nax Sénégal parce que suñu début émission bi yaa ngi dégg ñu doon wax naan tubaab bi yàgg nañ ñoo nax. ci commencement bi ñuy wax la le soleil se lève à l'est et se mm. à l'ouest mm. ñu dem ba si yàggu ñu ne ñu soleil bi fi mu nekk bougé wul jant bi bougé wul euh, suuf si mooy tourné ah, ñu dem ba si yàggu ñu ñu euh, terre bi dafa plate dafa plate mm. léegi yooyu yëpp dañ koo gëm mm-hmm. yooyu yëpp ñun dañ koo gëm ñun ñu demoon école parce que loolu lañ ñu jàngal mais léegi ba pare ñu retourné di ñu jàngal euh, histoire France